Mamadou Ndiaye membre APR Benno Bokk Yaakaar commune Thiès Nord. alors euh, Mamadou yéen da ngeen di wax euh, ci euh, Thiès toujours les chantiers de Thiès da ngeen di wax exécuté nañ ko à 90 pour cent que ni Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi am na lu mu def Thiès mu mel ni loolu communication bi ci war amul wala boog mu nekk rek ay jafe-jafe yoo xamante ne ñu bëri dañ naan dañuy jàpp ni toujours rek li nga xamante ne mooy liggéey dañu am fu ñuy sooxee. yow en tant que way politique nga fare ci APR lan nga ciy àddu. 92 pour cent la chantier Thiès yi 92 pour cent dañ ko réalisé léegi chantier euh, yi dañuy rafetlu ni mu demee woon en 2003 si diggante président Abdoulaye Wade ak ki nga xam ne moo nekkoon premier ministre am jamono boobu Idriss Seck nekkoon maire Thiès amoon indi Thiès defar Sénégal pour jaaree ko si fête de l' indépendance bi njëkkee woon Thiès ak budget bu nekkoon 47 milliards la sa xewoon xew na si mu ngi si sunu ginnaaw. président Macky Sall bi mu dikkee moom dafay ñëwaat continuer continuité chantier Thiès yi indi tegal ñu Promoville Promoville bi mu li mu teg mooy képp kuy dox ci Sénégal ci Thiès fi mu ne nii actuellement nii may waxee yooyu boo dikkee di nga gis njariñ li nga xam ne président Macky Sall indi lañu ko kooku moom mënoo koo teen ba teen ba gisoo ko mënoo mënoo sëgg ba gisoo ko ndax boo sëggee di nga gis tali boo téenee di nga gis lam kon mënoo mucc xanaa nga bañ a ñëw Thiès boo ko bañee gis moom bul ñëw Thiès boo génnee tey 3000 lampadaires rek la nga xamante ne bii may na ko Thiès 1800 yi actuellement ñoo ngi koy installé ci biir cees yëpp ñetti communes yi est ouest ak nord géem a dëkk boo xoolee tey fi nga xamante ni mooy voie contournement nord bi nga xamante ne bii moo nekkoon fee bokkoon si chantier Thiès yi boo xoolee tey dañ ko alimenté woon da ko commencé tey ci station bi ba ngay génn Thiès ba sa Thiès ab fépp dañu ko leen sa lampe yi tàkk mais benn lampe tàkkatu mais tey boo gisee tey am nañ fi foo am jotoon nañ fa reprendre tegaat nañ fa lampe adhère yi boo demee tey nii di nga gis que ni da ngay takk lu leer nañ la kenn du ko wedd kenn du ko weddi nga dugg nii jaxaw jaaree foofu dugg camp bi romb ni ngay rombee camp bi ba ni ngay demee base gis nga encore ma nga leer nañ nga continuer sërxal duggu ngent yenn mbedd di gis nga fa lampadaire yi ma nga fa jëleel Medina Fall Jabel Dieng bi yaa ngi gis su tamit noonu la duggee ci Thiès gépp foofu mooy nord dugal commune est noonu boo fa demee di nga fa xool waaye itam noonu la demee nga dugg commune noonu la demee nga boole kook nag mooy la wax boo sëggee gisit mooy tali yi nga xamante ne bi eh, tàmbale na ko tali yi nag am na yoo xamante ne bi pareegul kon fi ma njëkk muy commune Thiès Nord jaxaaw gis nañu ko tàmbali mais pareegul mais dina faal prolongation Jabel Jeng boobu la wax noonu boo duggee nii à droite moo lay génne ji yóbbu la Kër Issa pareegul groupe boobu pareegul mais mu ngi suñu kanam lool nag euh, dañuy rafetlu tamit ki nga xam ne mooy coordinatrice bi bi mu fi ñëwee yaakaar naa yow ñi ko couvrir loon si nga bokkoon dégg nga la mu waxoon ma bi mu fi jógee tim yaakaar naa ni tali yu bari commencé na dugal commune jëlal Mbour 4 entre Mbour 4 Mbour 3 mooy en face antenne bi tout droit prolongation jëm si euh, <laughs> gis nga tàngam jé foofu ñëwal soo dikkee bi nga xamante ne bi tim moo romb mairie commune ouest noonu dugg biir Grand Standing génn prolongation bi fële Euh, fa jëm EDK bi pare la ñëwal fi nga xamante ne bii mooy centre ville bi bu ñu tuddee apayage bi nga xamante ni moom lañ greffier ci promenade bi mu dugg randu leen l'ombre lazare dégg biir gën a Thiès avenue Bawol ñu ko tuddee avenue Bawol waxatuñ ko demal Cité Lamine nga xamante ni moom dañ lay wax ne ñoom ba Cité Lamine de Cité Lamine ba tey si président Macky Sall la gisee goudron isinde ba am na yu pare am na yu pareegul ñëwal Cité Senghor et cetera demal Ersan am na yu parce que yooyu yëpp itam yëpp mën noo pare ndoo mais actuellement daal ku dox di nga gis yoo xamante ne bii pare na tali oto yaa ngi say jaar jakarta yaa ngi say daw wutir yaa ngi say kokki kokkiti ku téemi di gis lamp yi leer nañ kon état Sénégal ñoo ngi leen sant di leen gërëm. wàllu infrastructure euh, ci loolu euh, la def ci wàllu équipement mais tey euh, li nga xamante mooy wàllu njàng mi lu mel université Thiès ñu bëri waxoon nañu dafa tasaaroo ba nga xamante ne bi ñu koy door ak président Abdoulaye Wade dañu luy woon ay bâtiment pour rek mën a abriter yenn UFR yi ak tamit yenn campus yi mais tey ñu gis nii loolu am na coppite mais communication bi ci war dañuy gis ni day tagante day taggatembe ci woy politique bu nekkee APR mel ni amul cawarte. waaw xam nga université de Thiès bi ñu ko président Abdoulaye Wade teg en 2006 euh, étudiants yi bu ñu daan ñëw fële leen doon jàng déggoon nga xeex yi fi daan am ak étudiants yi ñu nekk ñoom pôle na foofu léegi nag tey boo dee xool tey bâtiment yi jël na na tey nu mu teenee ni état continuité la président Abdoulaye Wade dem na président Macky Sall moo fi ñëw dafay continuer état bâtiment fa jaar université de xam ni bâtiment yi jël na forme te yàggatutul dina pare mais continuer tamit nga dem jasab fële ISEP parce que dama doon lim dama doon indil si infrastructure ak l'emploi des rek ICEP moom pare na yaakaar naa ne ren 2019 ou 2020 dina tijji ñu sécuriser ko nag def bac plus 2 bac plus 2 moo dafay dugal kon dañu ko sécuriser muy lom solo ndax formation professionnelle la te président dafa indi terre pour Sénégal émergence kon il faut que ñu former xale yi ca loola ndax yaakaar naa métier yu bari am na foofu quoi beneen bi si desitim mooy comme li ma la rek yoo xam ne si sànce ci Thiès yi bokkoon na si mooy la du 90 ma 92 pour cent pare na domaine kenn waxaale ko. bi. tribunal régional <laughs> kenn waxaale ko pare na éditorium bi kenn waxaale ko kon bari na foo xamante ni bii dafa tege woon si sànce ji Thiès yi te yooyu yëpp biñ dikkee eggale nañ ko mais sànce si en tant nag mooy la ma la wax rek yemul rek si Idriss Seck Idriss jàmbaar la foofu la fi mënoon a egg président bi bul fàtte Euh, poste électif yi nga xam te ni moo nekk Thiès fii ñi ko yor tey ay opposant président Macky Sall lañu opposant régime bi lañu muy waa réew mi léegi nag président Macky Sall pour jàppale Thiès pour eggale Thiès li mu fi war a eggale leen la mën a mën a def mooy il faut mu collaborer ak ñoom mën a liggéey foofu la jaar sax forox longu félicité Talla bi nga xam ne moo yor maire ville maire de la ville parce que tamit bu amul woon collaboration heureusement que Talla Sylla mi ngi fi léegi ñoom it dem nañ ba si biir it xam nañ Sénégal ñoo ko bokkit ñoom it yaakaar ñoom ñëpp ajouté nañ si mais euh, daal laa xamante ne bii moom Talla def na man su ma ko doon digal dama def na erreur te na ko reconnaître mu bañ koo ko delee mooy bi muy lan bi muy lancé application lampadaire yi mooy convoqué wul invité wul ñetti maire yi nga xamante ne bi ñoom la seqal dëkk bi wax daa jóg suñu collaborateur la suñu allié la mais daa jóg te leen na waxoon na ñu ànd defal na ko état Sénégal moo ko may pour Sénégal population Thiès bokk si di ko bénéficié wu kon moom bu nekkee kii bi nekk benn la bi da leen woon a teg ñoom ñëpp ñu ñëw mais teewul ñetti commune yëpp kenn mënu koo miin yii ma la wax nii yëpp euh, commune Thiès Nord la am yoo xam ne commune euh, ouest la am na yoo xamante ne bi commune est la si Pape Diop te teewul ñoom ñëpp si bénéficié wu mu jaaxal ñu lool da gis léeg yenn mbedd yi wala yenn xàll yu mag yi nga gis ñaari flanc yëpp am ay lampe nga gis yeneen yi et puis léeg-léeg nga gis yenn quartier yi dafa mel ni ay cuuc coppet la waaw foofu laay waxee foofu foofu tamit dafa am yoo xam te ni man rafetlu man rafetlu ma loolu parce que tey da nga comme li ko waxal effectivement ni dañuy alimenté gauche alimenté te boo demee si mbedd euh, commune yooyu ñu koy def am na quartier yoo xam te ni seen mbedd yi amul lamp loolu teg ñu ko fenn mooy li ma la rek c'est-à-dire am na xam boo koy def da koy da nga associé ñi si war ñu ko war a def parce que am na ñoo xamante ni peut-être boo demee ñun la diw moo gagné marché bi kooku gagné marché bi lan la mooy kan mooy lan am na yoo xamante ni bi si état la mais maire yi dañ leen si waroon <laughs> impliqué mën ñu ko bañ parce que état du Sénégal moo ko def Lamine Diallo moo la gën a xam ne état du Sénégal moo ko jox Talla Sylla moo la gën a xam ne état du Sénégal seen population bi tam am nañu ko xam am nañu ko xam la waaye ñun ñoo leen koy leeral état du Sénégal moom may l'employeur yi Macky Sall moo ko may waa Thiès. Lamine Diallo moom di maire bu Thiès Nord nee moom da ciy félicité état bu Sénégal ndaxte dina wàññi bu baax a baax li nga xam ne mooy factures yi mais également réseau bi nga xam ne mooy yore éclairage public bi euh, nekk na réseau boo xam ne réseau bu màgget la euh, ba nga xamante ne buñ ci defee ay millions tamit ñaar ba ñetti weer rek.

réew mi lañ bokk nañ si ànd ñun ñëpp liggéey parce que tey ñun mooy suñu maire ñun commune Thiès Nord exemple laa lay jox tey suñu bëgg suñu sañoon day réussir ndax bu réussir commune Thiès Nord mooy réussir boo eseegee tam am na loo xam ci Thiès ko waroon a am amu te mandat bi moo fi ne donte seen mandat jeexoon na depuis le 29 juin mais président de la république moom moo jël décret prolongation defal leen ko dàq élection yi kon élection amatul décembre 2019 kañ la élection di am xamagu ko xamaguñ ko tamit ndax segam dañoo def dialogue am commission politique boo xam ñoom ñoo ngi koy waxtaani ministre de l' intérieur convoqué ne leen parti politique euh, ni euh, tey mooy commission bi ngay wax euh, ci la génne ci rek li nga xamante ne moom mooy report élection yi mais tey ci li nga xamante ne mooy wàllu liggéey bi ku mel ni Abdoulaye Fall Mao yore fi à parti politique di APDR alliance patriotique pour les jàmbaar Euh, mu gis ni jàpp na ni commission bi sax am na ñoo xamante ne waruñu koo jiite parce que am nañu ay gàkk-gàkk. waaw waaw euh, man commission politique laa wax ki ko jiite kenn mënu ko dut baaraam ministre de l' intérieur nekkoon na ko fi muy général Mamadou Niang nekkoon na ministre de l' intérieur. de l' intérieur kon ku ko jiite woon ah nekk premier flic du pays kon je ne pense pas ni mën nañ la dut baaraam te dara. CDS la CDS nag ma tey problème ñoom ña fay nekk la présentement maa koy nuyu bu baax de parce que sunu doyen la ku am courage la seetaan naa émission bi nga def ak moom ndax moom moom bokk na si ñoo xamante ne bi yàgg naa dem ministère de l' intérieur ndax président parti la dañ ministère de l' mu du convoqué ku dul parti kon président Mao gis nañu baax li kooku waaye bi ki ko jiite daal moom muy euh, général ñaa kenn mënu ko dut kenn mënu ko dut baaraam la sa des nag mooy ña fay nekk di dem kooku ku nekk dafa am parti politique boo représenté la nga fay wax nag kenn mënu la contrôler ndax politicien moom kenn du ko rey ko dul yàlla politicien kenn du ko rey ko dul yàlla waaw kon ña fay dem lañ fay waxi ñoom lañu engagé ak en tout cas daal président moom neen du jël benn décision lu dul kenn ñoom ñay def con euh, euh, waxtaan ba dañu am consensus bu ndikkee mu validé ko ñu jàpp déedéet élection yi. très bien Mamadou mu mel ni rek euh, jafe-jafe amoon na ci Mbour de Mbour 3 quartier yooyu ci wàllu approvisionnement ci wàllu ndox. Euh, ba taxoon na amoon na ab château boo xam ne waa Mbour 2 Mbour 3 ak ñi nekk ci gox yooyu dañuy sax euh, jooy toujours euh, ñàkk ndox mi parce que ba léegi dañuy siital maanaam dañuy teg ay bidon ki butéel loolu mu mel ni yéen newoon ngeen di ci indi ay saafara. saafara bi am na de man de loo xam ne bi bopp fa ko jiitu sax muy Dakar 2 dem naa fa démb bëccëgu ndara tàng am na commando loolu koo xam ne sama waay la ñu ànd ruume na baa ngay réew ta foo sooray la si biir Dakar de robinet baa ngay xel kon mu nekk loo xam ne Thiès waay encore Thiès Thiès dañoo xamagul ba tey fi leen président Macky Sall teg loolu mooy suñu problème parce que tamit dañoo am ku fi ne koo xam dañoo opposé waaf bi yàgg si Thiès bi président Idrissa Seck mais boo xoolee président Macky Sall reconnaissance bi mu am ak Thiès nga xool mooy projet étatique bi mu njëkk a teg bi jëlee gouvernement bi Thiès la ko def mu sotti doo buur trois def say milliards campagne 2012 yi falal la fala daloon bi mu dikkee problème bi mooy lan amoon nañu problème mu ndox mu ni moom bu jotee réew mi insha allah lii dina ko saafara saafara na ko man li ma la wax dund démb rek Dakar 2 fu am na commando la ni ngi may dégg <laughs> may gis robine ba cëgu ndara kaam robine baa ngi xel kon loolu problème ndox moom seen passe kan yi waxati nañ alors mu mel ni tamit euh, KMS 3 bi am na jafe-jafe parce que am na dëkk yoo xam ne da na a romb te nee ñu euh, tuyau bi euh, maanaam jàppul ci dëkk yooyu ci dëkk yu am problème ndox. waaw KMS 1 bi am nañu am na ko la dajeer bu njëkk bi 1 bi. am na dëkk yu mu romb yoo xam ne amuñu amaguñu ndox. ma may ne Macky Sall def na dafa ñëw pour indi ay changements. foofu loolu laa loolu laa lay waxee KMS 3 bi da ko teg pour renforcer réseau bi Dakar Thiès Mbour. dina démarrer yàggatul maanaam KMS 3 bi. KMS 3 bi waaw da koy def pour renforcer réseau bi reprendre renforcer ko Dakar Mbour Thiès loolu lay problème yaakaar naa ni su paree ba commencé daw problème mu ndox Dakar dootoo ko déggati problème ndox Thiès dootoo ko déggati problème ndox Mbour dootoo ko dégg te fur et à mesure dégg ministre de l' intérieur ci di cérémonie euh, officielle màggal gi wax na ko Touba Tim noonu la fay demee ji kon Sénégal lay liggéey. si comme Sénégal lay liggéey fépp de dina ñëw it mooy problème dañ koy doolu jox réew mi. deuxième mandat sept ans njëkk njëkkee gis nga leen mu teg cinq ans yi ko des nag lépp fépp foo xamul amul lépp fi néew ma fépp dina jag de na leer waaye bëgg na fu ne incha allah mu defa dal alors euh, très bien Mamadou euh, tey wax nga ci wàllu réalisation président Macky Sall euh, mu mel ni tabb na doomu Thiès daal di koy jox porte parole mu nekk porte parole bu gouvernement nekk tamit ministre de l'économie di Ndeye Tické Ndiaye Diop def na ab tournée doom naam sax daan na ko def média daaw ko gunge seeti ay responsable politique ak yu ni mel mais bii pas dafa am beneen lu ci feeñ loo xam ne yow en tant que analyste politique naka nga koy jàngatee. waaw nga may ma rek bala maa ñëw sama jigéen boobu Ndeye Tické Ndiaye réalisation président bi dama pareegul ndax daa benn question boo ma dugaloon moom laay tontu mais bu ñu fàttee itam que ni autoroute Ila Touba président Macky Sall Sénégal mooy Dakar AIBD na leer nañ ko xam bu baax kooku président Abdoulaye Wade moo ko teg président Macky Sall mais bi nga xam ne mooy projet mu bees tàq sunu vengé bi ñu bokkaloon fii bi ñu bokkal Thiès fii bokkal moom parti muy ministre Thierno Alassane Sall moo ko signé avec les Sinois keroog ba mu dem di ko signé manifestation politique bi mu mujjee def pour dem siin maamaa koo defal Mbour 3 kon ça veut dire xam nañ baax li ñuy def ak li ñuy wax pour faut que ñu wax li président di liggéey Ila Touba bi projet bu bees tàq la du président kenn projet président Macky Sall la bi si des ñu xam ko muy aéroport jas bii nga xam te ne bii si xaalis Sénégal lañ ko defee budget Sénégal def ko si eh, ay taxes ak eh, impôts Sénégal ñu defaree ko 750 milliards par exemple Abdoulaye Wade bi muy teg aéroport bi ak eh, mu dem eggul par exemple Macky Sall daa jëlaat si xaalis Sénégal 350 milliards nañu wax loolu eggalee ko aéroport bi loolu mën fay wàcc muy daw mais su ko def su jël woon courage am ko du ko jëlee fii saoudiens yi ndax liggéeyuñu woon indi Turquie ñu eggal avion bi euh, ñu rek ñu eggal bi su ko def loolu aéro euh, la daal par exemple leen moo ko daal mooy euh, aéro avion nañ ko xam bu baax 400 milliards liggéeyu mooy sunu jigéen day Tické man maa nga sa woon mu ñu koy rafetlu parce que dafa nekk loo xamante ni bii ñun cees lañ dëkk yàgg nañ ci parti bi tim mais li mu def dafa nekk loo xamante ni ñun dañ koy encourager di ko féliciter. ndax tey bu defee parce que membre di gouvernement la comme ni ko wax léegi mooy porte-parole encore du léegi yi nga ñaar ñu mu jàll ji yëpp sur le plan protocolaire defoon na ko ak gouvernement dem na si levée de corps dem na sa cérémonie officielle mu ñaar ñi mu ñaar ñoom ñaari ñëpp kay tey bu dikkaatee Thiès ni léegi day jaaree seen responsable yi fa nekk local ci ville bi effectivement dafa xam lu baax par bu fàtte ni moo nekkul responsable Benno Bokk Yaakaar di département bu Fahmi càmmiñam suñu doyen Augustin Tine nekk coordonnateur départemental liggéey si ñoom ñaar ñëpp liggéey si liggéey bu rafet léegi nag Augustin commune bi 15 euh, euh, département bi quinze communes la trois yi si biir ville la nekk Ndeye moo nekk ministre si ville bi kon bu jëlee initiative ni day jaale responsable bi nga xam ne moo nekk si ville bu parti s mu te dégg ba mu déggatim ba nga demee dégg na ko yaakaar naa yaa ko découvrir la ma wax leer na nañ boo fi jógee nii su ngeen paree bu ngeen génnee rapport lay def envoyé ko léegi madame euh, ko bureau politique parti socialiste bañu demee see euh, waa PIT tim doyen Morña doyen Amad Kamara ak ñoo nga xam te ñoom la ñu bokkal ñoom Ousseynou Ndion ak euh, Diallo ñi nga xam ne mooy seen responsable femme ak Ndeye Dieynaba Diallo bi nga xam te ne moom lañu fekk ak seen délégation ñëpp la ñu wax leer na nañ Mor Niang sax dem na ba ni parce que ñoom ñaar ñëpp xam nañu du ma ni mooy homme de confiance du ma daan soxla waaye bokk na si ba mu làqu làqul que waaye tey bu ñëwaatee responsable yi nga xam ñoo nekk si ville bi vraiment dañ koo rafetlu mu jóge fi defaat ñaari visite courtoise politique muy président Babacar Pascal ak président Abdoulaye Dièye

nee na ko bi may ñëw sama waa kër ñu nga xam noo dëkk si kër gi ñoo nga ma bàyyi sama kër Touba ñi nga xamante ne ñenn nañ sami politique tuuti ñoo nga ma bàyyi sama waa kër ñoo nga bàyyi Touba man maa rocceeku ñëw pour recevoir leen ndax xam ne bi ñu màggalee ba sa ginnaaw suba la hmm? kon mu nekk loo xamante ne bi lu ñu rafetlu la bi ñu demee si ñi nga xamante ne mooy président Abdoulaye Dièye dégg nga moom itam ma nga fa ay mbokkam yi nga xamante ni bi mbokki boppam la ñoo nga fa ay mbokkam yi nga xamante ni mooy mbokki politique am ñoo nga fa coordinateur a nga fa coordinatrice am nga fa ay responsable jeune am nga fa responsable jeune fille nga fa ñépp a nga ma fa la mu am lépp indi na ko ñu nga xamante ni bi leen si ay responsable indi na ko muy lu ko neex muy rafetlu ñu rafetlu bu baax démarche bi beneen bi si tekki président euh, ki nga xamante ni bi mooy sunu jigéen madame le ministre muy Ndeye Tické mu teg agenda boo xamante ni bi da koy déroulé incha allah moom la bëgg yàlla bu ko ko yàlla dimbali dooleel ko ba mu mën koo eggalee ni da koo tàmbali mais da koy eggale si ñëpp képp koo xamante ne bi yaa ngi fii ci ville bi di liggéey ak Benno Bokk Yaakaar dina def déplacement ñëw si yow moo xam mouvement nga yor moo xam parti nga muy allié ou bien nga nekk responsable boo xamante ne APR nga doon ak koo a doon nag ku koy wax lu rafet ak ku koy wax lu ñaaw la yemale parce que président mën ko liggéeyal ma ak Benno Bokk Yaakaar amul choix dina ko def te jël na tànkam te yee kon mooy li nga xam noonu ñu ko te incha allah taala dina leer nañ si ñëpp que dina ñëw alors ñu bëri nañuy wax ni euh, tey li nga xamante ni moom jéego yi mu jël biñ ko tabbee ministre ba léegi jox ko ndomb tànk tamit jox ko tamit kàddu gouvernement bi euh, mel nañ daal nee nañ am nañ yaakaar ni moom mën na téye APR ak benn bokk yaakaar ci Thiès ville ci taxawaay bi nga xam ne euh, commencé na ko. waaw nga téye APR ak yor yor polémique am xam nga tey mooy amoon nañ fi ndax amoon nañ fi bis ñu yàgg na ci parti bi xam nañ li xew parce que am na fi ay ñuñ fi jëloon ñoo xam ne dañoo jëloon seen agenda personnel. moom bu jëloon agenda personnel mën nañu dañ koy xeex dañuy attaqué dañ koy xeex dañ ko da ginaar kenn neenuñu mais problème bi mooy comme li ma la mooy dafa am esprit fédératrice nekk ko xamante ne bi mi ngi dajal te gis nga délégation bi ko xamante ne bi émissaire yi nga xamante ne bi président teg avant mu teg affaire ñi ñu yoon xool Sénégal la xool bokkoon na si kon kooku doyen bi Cheikh Kane bi nga xamante ne bii mooy permanent bu AFP kon ak ñeneen ak ñeneen kon loolu mu nekk loo xamante ne bii yaakaar naa ni alliés yi nga xamante ni moom la président am cees woo na leen ñu ànd pour def loolu léegi da comme li xam la parce que mënut a tàmbalee ci at te buñ buñ fàttee encore mi ngi tàmbalee si docteur Pape Amadou Ndiaye le muy ko ko xam ne man damay wax ni képp koo xamante ni bii si coalition bi nga nekk nekk si parti bi di Yeewu Thiès mooy sa leader ndax mooy leader bi fanaanoom ñoom te moom tukkeem bi xëy na da ko médiatiser wul woon mais si Pape Amadou Ndiaye la njëkkee kon léegi su njëkkee si Pape Amadou Ndiaye muy APR nekk ak moom restaurant moom rek la defoon bu ñu visité moom dem toog bu dikkaatee tey ñëw si alliés yi ñii ay parti lañu ñii ay mouvement lañu bu jugaatee ni day continuer waat dina defaat si mouvement yi dina defaat parti ci waa APR dina defaat si ñi nga xam ne ay alliés parti kon dañuy rafetlu sema bi mu jël yàlla ba si jot dugg yàlla ko yeggaleeg jàmm ak salaam Euh, très bien mu mel ni tamit euh, ci beneen wàll wi euh, APR tàmmoon nañ di leen gis maanaam ci ay point de presse ci ay tontante ay xuloo ak li mu mel ni Soriki Kaba moom ci li nga xamante ne rek moom moo tax ñu dàkk ko mooy ginnaaw séminaire communication Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne président ak ñooñu Benno amaloon nañ ko mu mel ni yat bi foofu la jógee wala ci troisième mandat bi la jógee. troisième mandat bi man yéen journaliste yi man damaa gis que ni li ñuy wax naan troisième pouvoir yéen a ko yor dëgg la. parce que yéen a jël polémique bi teg ko bu ko def réalité te demeewul noonu la vérité parce que troisième mandat bi président am na lu mu si waxoon lan moo tax journaliste waxuñu si loolu duñ ko indi. mooy kenn wax waxu troisième mandat. la waxoon léegi pa lan moo tax ñu bëgg indi leneen lan moo tax ñu ne président kooku loo ko mën a waxal xam ne ku gëm constitution la dinaa ñëw si question bi de. mais dama ko koy firndale. gëm waa kay mooy 2011 bi conseil constitutionnel prononcé candidature président Abdoulaye Wade. dafa xam ne ginnaaw ndogalul yàlla déggul baax li ma lay wax kii Sénégal yi donc ko a jël mooy lan Sénégal si carte la fale na dem conclure carte Sénégal carte euh, euh, sénégalais dem sëñ Sidi Maxtar ñaanal ko ak ñeneen ak ñeneen mag ñi nekk si réew mu dem def campagne xeexul xulawul dóorante wi yàtt ndax faju ko ba leçon dikkee moo feeñ Sénégal jox ko réew mu jël réew loolu la ñuy gagné ku ku gëm question la léegi beneen bi si des nag mooy Sourika Kaba du problème troisième mandat moo tax ñu dàq ko il faut que ñu xam li xam parce que ñun ay politiciens lañu parce que duñu bàyyi journaliste bi mu def lu leen neex teg ko ba ko def réalité na leer surtout que ba problème mu Matar Ba maire Fatick moo tax ñu dàq ko na parce que avant émission boobu am na émission yu bari yu muy def demal na boppam moom Fatick ay journaliste sopp ko muy tiire Matar Ba moo nekk maire Fatick nekk ministre des sports bokk ak moom Fatick élection amul campagne amul ngeen bokk parti bokk allié mais la moo waral tey euh, diabolisation yi mais président comme li nga waxoon séminaire boobu jëloon na jël waxoon na leen mais li mu waxoon da koy appliqué de di ko di ko si remercier bu baax nag parce que loolu dafa réglé problème mu Sénégal gépp président dafa réglé loolu problème mu Sénégal gépp bu jeex une bonne fois pour tous Sodik Kaba bu continuer di tirer si Matar Ba te campagne amul amul na am courage am moom bëgg na nekk maire Fatick pourquoi mais na nekk loolu jot avant élection bu ñu jàppee date élection comité électoral électoral day am bu comité électoral amee ba ne demal ni coordination bi la soxla maa doon coordinateur bi la falee mais Matar Ba du dem yoway dem il bàyyil ba loolu jot di saluer bu baax courage ak bi nga xam ne Matar am na ko effectivement bi ko ko leer na te foofu laa ko doon xaar fa la ñëw mooy ñun taluñu loola waxaguñu mooy sunu mandat bii ñu door a jox président de la juróom-ñaari juróomi at lañ bëgg ñun juróom-ñaari at yi ñu defoon léegi juróom at yi ñu def ñu def loo xamante ne bi incha allah dina jëmal Sénégal kanam si loolu la ñu wax mais pas question trois mois troisième mandat taxul ñu dàq Siri Sidiki Kaba de eh, Sidiki Kaba Suri Kaba Suri Kaba xam ne tax ñu dàq ko mooy tiire yi muy tiire en tant que jegem tamit ak camarade maa ngi ñëw jegem ak Sonko tamit taxul ñu dàq ko maa jegem ak Sonko kooku privé mi la bu fekkee am na man duma ko ko accusé bu fekkee am na kooku leneen la dama ne su fekkee laa wax Matar Ba dafa bokk ak moom di camarade de parti am nekk maire nekk premier bu maire euh, ville ville de Fatick ngeen bokk parti bokk coalition ngay tiré sama te élection dara amul président du seetaan loolu moom donc ma ko mën a attaqué te atte na te loolu nag réglé Sénégal gépp pour dañuy encouragé di wax félicitation président de la kon loolu da ngaa bëgg woon day law ci biir Sénégal yëpp. leer na déggu ma la wax jeex na président alors euh, très bien mais tey génnub maanaam wàcceb Abdou Mbow wàcc la parce que troisième vice président la woon assemblée nationale euh, tey nekkatu ko président commission euh, affaires étrangères la li ni mel mu mel dañu rétrogradé encore Thiès. est ce que est gisuñu loolu yokkute la si moom bu ñu fàttali leen de bu ñu fàttali Abdou Mbow dafa am mandat premier mandat député dugg si deuxième mandat boo xam ne mi ngi def troisième mandat yooyu yëpp vice président bu ne Abdou Mbow liste la ko président di yóbbu muy Abdou Mbow man damay damay féliciter courage am di féliciter engagement am parce que dafa am loo xamante ni bi yenn ñenn ci waa affaire dañ koy faral di def bëgg see wutal limite ñenn ñi door a ñëw te Abdou fekk ko si te nag bu doon loolu dong kenn gënu ko see yey ndax dafa bokkoon si ñi rép euh, déposé ji euh, récépissé APR Abdou Mbow doo ko dégg mukk mu réclamer ancienneté ancienneté doo ko dégg Abdou Mbow réclamé. maanaam les anciens de l'APR. li ñuy wax noonu ay affaire ah, doo. dégg moom nekkoon na euh, nekk nekk président foofu loolu loolu lay wax moom même de ces questions laa la xam loolu leeral na la ko laa wax. courage nit ki laa la wax en tant que ndax ñoo bokk moom dëkk fii Thiès man ne man la moom doo ko dégg mukk mukk mukk toujours mi ngi jindi di indi koo xam ne dafa war a dafa war a si pour APR mais doo a a xeex ñenn ñi def benn noy boo xam ne bi kenn président yàgg na ko wax te loolu moo am si ñenn ñi teg nag président moom faalewul loolu soxlawul ancienneté Ousseynou Niass bi doyen Ousseynou Niass mi moo yor moo yor prévalence bi moo ko gën nekk ancien est que di nga dégg mu wax problème ancienneté yooyu yëfi caaxaan la nañ liggéey nit ñi tijji bunt yi ku war a ñëw ñëw président dama ne beneen configuration politique day génn man maa koy wax fii ndax président réew la yor est ce te day liggéey Sénégal te il faut ko mu tijji dugal waa Sénégal ñu ànd ak moom liggéey Sénégal na leer mais ñi wax nag APR amatul parce que président am na deuxième mandat am rek euh, fu mu ne euh, euh, xool nu mu setalee teram ak njabootam. waaw moo waral ñenn ñi ñenn ñi def yenn déclaration waaye ku ko defee yat bi dal la rek APR amatul mooy waxee lan. président di politique sain tey bu nekkee président daal def APR tax mu nekkoon ndax parti politique ndax daa politique ngeen naan APR amagul bëgg na buy dem ëllëg kii ko fii remplacé nekk APR bi la coalition Benno Bokk Yaakaar nekk allié sûr nag bu wóor. na leer nañ président parti la yor waa APR ñoo ngi si parti bi. Abdou Mbow daal man maa ngi maanaam Macky Sall dafa nar a am dauphin ci biir APR ak wala Benno Bokk Yaakaar. non loolu exeguñ si moo la chaque chose en son temps ni nga ma tontoo li nga ma laajee laa la tontoo loolu exeguñ si. loolu exeguñ si dama ne man ñun laa wax ñun waa APR li ñu bëgg mooy kii remplacer Macky Sall bokk suñu. li ñu bëgg mooy kii remplacer Macky Sall bokk suñu bokk si APR bokk si coalition Benno Bokk Yaakaar. alors euh, ginnaaw Thiès ci wàllu réalisation ak yi ni mel euh, tey situation nationale bi mais Mamadou ñu bëri ñuy ŋañ inondation yi nga xam ne ren dund nañ ko ñu bëri di wax plan directeur d'assainissement au niveau national vraiment war na nekk euh, équation boo xam ne président war ko mën a indi saafara. mooy li ma la wax léegi xam nga santé de Thiès dañu ko liggéeyoon liggéey yu yàkkam te xanaa naa am na hmm. am na amul plan de d'assainissement yoo xamante ni moo loolu da ciy joué point yi tiir yi seen problème ministère de direction la leen la maire yi itam dafa am loo xam ne moom lañ leen di nañ koy def curage curage loolu mooy seen liggéey parce que ñoom seen budget mënu loolu am na loo xam ne état moo ko mën waxoon nag sa émission man du ma si jaaraat état dégg na ko xam na ko te dina si liggéey du ma si jaaraat alors euh, très bien ba tey euh, Thiès euh, ginnaaw bi nga waxee bi nga xam ne président def ko ko fi euh, ci ay réalisation ak yi ni mel mu mel ni Thiès mu ngi xaar yeneen projet yu gën a mag ci rek ci wàllu ay industrie parce que gis nañ ni tey lu mel ni ISEP wax nga ko les métiers du rail parce que tey train express ak li ni mel mais chemin de fer nekk na kër goo xam ne ñëpp xam nañ ni la fa génn ci koppar. daan na yore waxuma sax Thiès Sénégal parce que euh, maanaam euh, saxaar bi fu mu daan romb rek maanaam dafa daan bàyyi euh, jële fa bàyyi fa muy ay gaar yoo xam ne dëkk yooyu yëpp léegi def na ni maanaam seen dundin dafa am jafe-jafe lépp ko waral mooy raay bi nga xam ne rek train bi tey chemin de fer moo ko na saxal waaw problème bu chemin de fer il faut que ñu xam tamit li ñuy wax si chemin de fer parce que problème Sénégal du Sénégal du Sénégal rek moo ko yor convention la Mali la président France bi bi mu fi ñëwee février 2018 dégg nga la ma waxoon tax bu ñu fàtte ne Mali daa am problème su suñuy policier nga fa suñuy gendarme nga fa suñuy militaire nga fa pour jàmm am fa mais nag xëy na ak tournir bi am nii yaakaar nañ ni projet bi léegi mu lancé wu parce que waa Mali si seen jëm bopp ñoo ngi siy ñoo ngi siy dox nañ ñaan yàlla jàmm am parce que Thiès moom problème bi ak loo si mën de wax it semaine de fer moom daa baax Thiès yoo xamante ne bi si marché bi chaque mois daana daan daana fi dugg mais loolu ay at bu toogee depuis 2003 ba léegi duggatul day feeñ Thiès nag ay jàmbaar lañu mais 200 millions mooy nekk loo xamante ni moo daan tourné sax bu cheminot yi fayoo ko si biir marché si si marché bi chaque mois depuis 2003 ba léegi ba ñu ko yàqee ba ñu yàqee chemin de fer ba léegi président nag li man mooy relancer ko mi ngi si projet bi. mais ci promesse ah. bi mu fi bi mu fi ñëwee rek ci campagne présidentielle bi mu ngi koy wax ni namm ngeen euh, maanaam rek klaxon wu Aragoni. Aragoni la ko waxee maa ngi toog maa ngi nii jàkkaarloo moom. namm ngeen waa Thiès xam naa ne namm ngeen klaxon Aragoni. Hmm. nekkoon na Thiès xamoon na klaxon Aragoni moom si boppam. Hmm. kon su ko waxee xam na li mu wax. mais mën la loolu si la nekk bu fekkoon coobareem la ma la dëkk bi daa nekk daa nekk daa nekk Sénégal nekkul ma waaw ah, mais quand même il faut ñu xam li ñuy wax xam li ñuy defetim loolu mooy problème alors euh, très bien Mamadou euh, ci li nga xamante ne rek xam naa ni foofu la ñuy tëjee émission bi mooy diggante rek euh, li nga xamante ne ginnaaw bi bu ñu jaaree le khalife général des mourides di Serigne Mountakha Bachir mi nga xamante ne bokk na ci ñi nga xam ne tey climat social bi bokk na ci ñu koy apaiser tey diggante cantakun yi soxna Aïda Diallo ak rek ki nga xamante ne mooy Serigne Saliou Thioune bu Gueule Tapée bëri na ay jafe-jafe yu ci am ci màggal gi ba coow li bari ba sax soxna ay da am ci comportement boo xam ne ñenn ñi euh, dañ koo ŋàññi ba sax Serigne Touba bi nga xamante ne tey moom moo fi toogal Serigne Touba di la xalif yëkkati ci ay kàddu yéen en tant que analyste politique ci maanaam ci situation yi ni mel lan ngeen ciy àddu. waaw analyste politique mais encore en tant que taalibe murit yi. Ah, en tant que murit effectivement en tant que taalibe murit mais en tant que taalibe murit waaw analyse bi tontu bi ci def euh, yomb na mooy. du ñu wax lu wax lu dul li bi wax du ñu defit lu dul li bi def di ko wax ne li sëñ bi wax noonu la li sëñ bi defit noonu la man du ma si sori waaye daal leen xam nañ ko mooy sëñ Tuubaa dafa waxoon ni jaawastu naasi wa maa fi aydi naasi ila rabbi naasi wala ma wasaltu ila rabbi naasi aataani nafa naasi wa kafaani duroon naasi muy xolon bi rabbi naasi ñetti na juróom-benni naasi yooyu yëpp boo jàng jugal foofu dugal foofu benn kon nga xam ne sëñ Tuubaa ba mu rawee tey ba mu rawee du tey kenn mënta mooy li sëñ Muntaxa wax kenn mënta yàq yoonam wi kenn mënta yàq daraam ku ko yàq ku ko jéem a yàq yaa su yàqu man du ma si wax si loolu dara lu dul sëñ li sëñ bi wax waaye daal li nga xam ne jàng nañ ko daal mooy li la wax noonu sëñ Tuubaa dal nee na jaawastu naasi wa maa fi aydi naasi ila rabbi naasi wala maa wasaltu ila rabbi naasi ataa nañ nafa naas tayit wa kafaani dura naas jeex na takk beneen bi si des mooy sëñ Saliou Touré sëñ Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu léegi leeraloon na ko nee na sëñ Tuubaa kenn du ko xulul ndax na xaabat xulaat yamaal xusaadi tey di mu sama ni xustu dafa am feneen fu mu ko def ne muy walbale mu ne hadiyatullahil wadudu samadi lépp yonentam la mu ne ab xat xayaati bi nabi Muhammad wasalaatu wasalaamu ala asafil mursalin réew mi am na jàmm yàlla na jàmm sax ci Sénégal jërë ngeen jëf alhamdulilahi rabbil alamin